naataal ñaar fukk ak benn lu waral Jésus faatu ci bant ba dafa faatu ngir musal mooykat yi ci mbugal mi ñu yelloo Jésus masula mooy faatu na ngir dindi bàkkaar bi ñu tàggale ak yàlla bant bi daf ñuy fàttali ni Jésus mooy sarax bu mag bu sell bi yàlla def ngir ñun bu ñu gëmee Jésus nangoo tuub moytu lépp luy bàkkaar yàlla dinañu jéggal Jésus moo ñuy def ñuy ay doom di ay xaritu yàlla